mu ne leen ana yonent bi ñu ne ko yonent bi xamuñu fu mu nekk mu ne leen seet leen ko nangu la wax ak kenn te xamul lu yonent bi nekk bi ñu ko seetee ba xam ne mu ngi kër al arqam ibnu abil arqam bi ñu yóbboo aboubacar balay am jàmm ñu yóbbu ko ba mu teg bëtam yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu agsee yonent bi ne ko waaw naga def ana li nga def na nga def ak loolu mu ne am ma dara lu may metti lu sama kanam bi waa giir abdu manaaf banu abdu manaaf nag xam nga yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci murrata la dajeeg abubakar ci maam waaye giir banu taymi ñi nga xam ne ci la abubakar bokk ñu ne su abubakar deewee daanu rey utbatu ibnu rabia yàlla dogal sidna abubakar mucc ñu jàpp nag ñi nga xam ne ñoo doon jaam yi ñuy tudde al mustad'afuna mooy ñi nga xam ne dañ leen a opprimé bu metti ndax seen diine waaye mosuñu cee mbugal kenn kenn kenn ba mu weddi Abdullah ibnu Mas'ud nit ku tuuti la woon ëppul mètre ci guddaay te itam dafa tuuti bokk na suñu mu a tuub ñu toog benn bis mu ne moom daal gis nga waa Quraysin yi daal ay mbaam lañu li ñuy bañ a dégg daañu ko dégg man danaa génn tari alxuraan ca kaw ñu di ko dégg ñu ne ko ah bu ko def ko defee day doo dana metti wala doo ko nettali mu ne moom dana ko def daal dikk ba nga xam ne penc mi nga xam ne ci la arab yépp nekk mu daal di tàmbalee tari ñu tari rek ñu njëkkante ko dóor ko dóora dóora dóor ba ñu yenoo ko fa mu dikk ñu ne ko waxoon nañ lii de lii la dal mu ne waaw waaye nag tey jii nag laa leen gën a yàpp amatul dara lu ma leen ñu ne ñu tàmbali nag mbugal gi rek waa Quraysh nag bi nga xamee ne dem nañ ba jaaxle nañ mbir mi daal doy waar ñi gën a bari ci jaam yi ak ñi nga xam ne doxandéem lañu ak am ci ñi nga xam ne ci waa Quraysh dëgg-dëgg lañu bokk mu di Abu Bakar Zayd ibn Amr ibn Nufayl Ali ibn Abi Talib ak ñeneen ñoo xam ne ñi sidna Ousmane ndax sidna Ousmane bokk na ñi nga xam ne sidna Aboubacar moo ko campagne ba mu tuub naka noonu Abdourahman ibnu Awf naka noonu Abu Ubaydata Amir ibnul Jarrah naka noonu loo xam ne lu ma juróom benn lañu ci ñi ñu bokk ci al mu mubasharatu bil jannati sidna Aboubacar moo leen dugal ci lislaam ñu jaaxle nag ne léegi daal nanu seeti Abu Talib mi nga xam ne mooy aar Muhammad nu wax ko mu artu doomam jile ndax fi mu ne daal jaaxal na buñ dikkee dal di fekk Abu Talib mu toog ñu ne ko léegi da dañoo ñëw ngir nga dox suñu digganteek ak Muhammad wala nga bàyyeenu ko lu sàkk ci moom pexe ndax mu ngi mu ngi nuy xas dina saaga mu ngi xas sunu yàlla yi nuy jaamu mu ngi xas sunu maam yi mu ngi tax sunu jaam yi dina nu yàpp di tëbant ci suñu kaw léegi benn tere ko li muy def wala nga génn suñu digganteeg moom ñun ñu sàkk ci moom pexe mu wax leen wax ju nooy ju rafet ñu daal di ko dem ñu toogati mbir mi gën a jëm kaw di gën a jëm kaw ñu dellu siwaat yoonu ñaareel bi ñu dellu see ne ko xam nga lu xew léegi daal di ko ne nanu tawat la mënuloo ci moom dara léegi lii moo am da nga koy jox benn yow nu rey ko wala nu boole laak moom wala nga wax ko mu noppi wala nga nu boole laak moom yéen ñaar ñëpp ñu nu nu koy def nu def la ko dal di dem bi ñu demee mu woo Muhammad nettali ko li waa Makka yi wax mu ne ko su fekkonte ne dañu ma tëral day fab jant bi teg ko sama loxo bii ak tàngaayam ak diisaayam fab weer wi teg ko sama loxo bii ak tàngaay ak diisaayam du tax pour ma bàyyi lii ma nekk lii ma yàlla sant du ma ko bàyyi ba bu may dee mu ne ko nag gis nga mbir mii bu ma ci teg lu ma àttanul na nga delloo sa xel te nga yërëm ma yërëm sa bopp mu jàpp ne nag léegi Abu Taalib dana ko jébbale mu jooyee ba noppi nag mu ne ko nag yow sooy bon nga li la yàlla sant lépp na nga ca jaar waxal lu mu la waxloo defal lu mu la defloo bu soobee yàlla du ma la jëbble mukk luñ ñuy def lu ñaar lañ koy boole def ñu dem yoonu ñetteel la ñu dikk moom Muhammad ci boppam ba ba tam Rabia moo ko fekk mu toog ne ko yow gis nga lii ngay def bu fekkente ne da nga cee jublu bëgg alal nu dajale sunu alal yépp jox la ko ba nga ëpp leenu te nga bàyyi lii ndax fi mu nekk jaaxal nga nu jaxase nga sunu mbir mi xamatuñu ci lu mu nekk lépp lu nu fonkoon dëgg nga ko sa suufu tànk wane ne du dara bu fekkente ne tawat ju nekk ci yow la nu dajale xamkat yépp ak docteur yépp jox leen sunu alal ñu ñu ñu ñu faj la ba nga wér su ne nguur nga bëgg mu def la ngay sunu buur du nu def dara lu dul ci sa ndigal mu ne ko déglu mu déglu mu dal tàmbil tari suuratu tafsili ayum tanzilur rahmaan rahim kitaabun fussilat ayaatuhu qur'aanan arabiyyan ya'lamu man bashiirun wa naziirun fa'arada aktharuhum laa yasma'uun wa qaaluu quluubunaa fii akaanin mimmaa tad'uunaa ilayhi wa fii aazaanihinaa waqrun wa min baynina wa baynaka hijaabun fa'mal lanaa 'aamilan qul innamaa ana basharun mithlukum daal di tari bët ba dal di jóg dar gi mu ñoom dikk ci mbooloo mi ko yebaloon ne xam ngeen lu mu doon ñu ne ko ah mu ne bàyyi leen diggante Muhammad ak araab yi buñ ko reyee ñu xam ne ñeneen a ko rey nu mucc ci bu fekkente ne dem na ba man leen ba gëmloo leen diineem ji mu nekk teraanga ji dana dellu si ci nun ñu xam ne yonent bi ci nun la bokk ñu ne ko njabar na la njabar na la njabar na la yow anam ga nga demee woon bokkul ak gi nga dikkee toppal fële mu leen waaw kon baax na ngeen seet lu ngeen xalaat yéen ngeen wéyee ko waaye wax naa leen li ma xalaat ñu delluwaat ci Abu Talib ba tey ñoom li ñu wax naan taal bu tëlee tàkk rek wet gu ne nga koy taale sébb bu tëlee tàkk wet gu ne nga koy taale ak na bokk nañ ci tàmbali nañu mbugal di mbugal ñi ànd ak moom te amuñu ko leen aar Seyduna Yaasir ak doomam Ammar ibnu Yaasir ak soxnaam Umayya Sumayya dañu doon dox ba ñëw Màkka Yaasir ak Sumayya soxnaam ak Ammar ñu di leen mbugal mbugal mi gën a tar dañu leen di naq ci ndox di leen lakk ci safara dem fekk fi naaj wi gën a tànge ñu futti leen bañ set fab doj wi gën a diis teg ko ci seen dënn di leen wax saaga leen Muhammad saaga leen Muhammad yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis bi nga xamee ne ñoom waa kër Yaasir ñu ngi ci mbugal moomu mu romb leen bi nga xamee ne romb na rek ñu mel ne ñu deewoon te dal te dundaat seen xol dal di yëngu ñu dal di am mbëgg ak biir mbugal mi ñu nekk mépp ñu dal di yëngu geesu gis ko xam ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam yëgatuñu dara ci li leen daloon Muhammad ne absiru ya ala Yaasir fa inna maw'idakumul janna yéen waa kër Yaasir bëgg leen maanaam suma rendez ak yéen mooy àjjana rek ñu mbugal yaasir ba rey ko su ma yem mi nekkoon soxnaam dal di wax abu jahl mooy amar ibnu hisham wax ju naqari kooku mere ko dal di koy lobb xeej bi ci naq mu dal di faatu saa si amaar nag yàlla dogalul moom mu dee waaye mbugal nañ ko mbugal yoo xam ne am na ñuñ ko mbugal ñu wax baat yoo xam ne dañ ko wax ngir bëgg a mucc waaye gëmuñu ko ci liñ leen doon sant daanu ci àgg Ammar moomu di nit ku nga xam ne ci saxaaba yu mag yi la bokk ñàkk na ndeyam ñàkk baayam ñàkk léppam ngir diine lislaam ñu mbugal ko ba mu dem ba nekk diggante dund ak dee waaye fu mu toll ahadu ahad rek lay wax yàlla kenn rek la yàlla kenn rek la yàlla kenn rek la Seydina Bilaal Umayya daf ko daan yóbbu moom it fan naaj wi gën a tànge teg ci dënnam bi doj wi gën a diis di ko dóor di tàngal weñ ba mu tàng mu di ko ko teg wala mu tàngal ay doj ba mu tàng ndax Seydina Bilaal nee na benn bis tàngal nañu ay doj ba mu xonq ñu tëral ma ci dara fayul taal boobu lu dul sama graisse bopp gi moo ko fay waaye fu mu toll mu ngi naan ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad benn bis Seydina Aboubacar radiyallahu anhu romb ko ne Umayya ibn Xalaf ay yow mi ragalal yàlla ci miskin mi ngay mu ne ko teqli ko yow yow yaa ko yàq yow ak sa Muhammad mi seen diine jooju boo ko boo mënee dara fajal ko ko mu ne ko am naa jaam boo xam nit ku ñuul la ne moom yéen a bokk diine te moo ëpp kii doole dàq koo liggéey ma jox la ko nga jox ma ko mu ne ko waaw nangu naa mu indi jox ko ko mu dox ko bilaal mu daal di goreel bilaal takk moo laam bàyyi xabaab ibnu larata nit la koo xam ne homme de métier maanaam nit ku liggéey la daan def ba ñëw màkka mugal nañ ko ba bàyyi ko am jigéen joo nga xam ne Seydina Omar daf ko daan mbugal bi mu tuubagul di ko mbugal di ko mbugal ba bàyyi ko daf ko daan wax ne ko bul defe ne bàyyi naa la dul rek tàyyi ci yow rek tàyyi ci sa affaire daal moo tax ma bàyyi la waaye du caagin dama la yërëm wala dara bu ko defee jigéen ji ne ko noonu la yàlla def boo tuubul na itam ah soxay bu ibnu waa Ruum la dafa ñëw tuub mu nekkee Makka mbugal nañ ko moomit ba xeetu mbugal jeex dara lañ mënoon ci ñoom xam ne ñu ñu mbugal muy ay góor ak ay jigéen yépp dem nañ ba yàlla musal leen jeexal seen dugal ñu nekk seen jàmm waaye Quraysin moom waa Quraysin moom na jekk dara du ñu dem dem mukk mukk mukk muk di kot ci seen loolu ku ñu wax euh, Abu Jahl nag Amr ibn Hisham lañ ko xam woon bu njëkk bu ñu ko tuddeegul Abu Jahl Abu Jahl mooy borom réer gi réer gi mu réeroon ak bañ gi mu bañoon yonante bi alayhi salaatu wasalaam moo taxoon ñu tuddee ko Abu Jahl benn bis mu ne moom daal waa yéen waa Quraysh daal da ngeen a nasax te da ngeen a ñàkk bopp te da a ragal ndax daal Muhammad ak Abu Talib rek dinu mën ma ne fu nekk mu ne muy def loo na ko dinu ñàkk loo fayda xam ngeen wu de man danaa jeexal mbir mi ëllëg Muhammad dana ñëw fii ci kuuru Kaaba gi di julli damay bàyyi ba mu sujjóot ma fab doj woo xam ne pesé na ay dizaine kilo doj wu diis yaru ko rek dóor ko ci bopp bu mu jeex luñ may def def na ko mu jeex